gannaaw bu ma leen euh, nuyoo bi gën a teg di jaarale nuyoo boobu ci Serigne Gallas Kaltoum mu tegal ñu ko ci loxo Serigne Moustapha mi fi Serigne Baara tey di nuyu mbokki taalibe yëpp di ñaan Serigne Moustapha mu nuyul ñu njabootu sëriñ Fallou gépp yeggaleel ñu itam suñu nuyoo ci xalif général des Mourides Serigne euh, Mountakha di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te mu ànd ak wér di wax ne rekk am na ñu mbégte teewaat fi ren di sant suñu borom bu baax ci li mu ñu kàttanal ci loolu euh, mbégte mi ñu ci am nag li ko yokk mooy ñun dañoo boole woon suñu bopp ci njabootu Alaaji Baara ndax yàlla daf ñu boo daf ñu baaxe woon ci ak nekkam lu jiitu muy nekk Serigne Touba ci kaw suuf daf ñoo ëmbaloon cofeel di di ñu seet euh, cofeel googu réyoon ci ñun trop trop trop bi ko yàlla defee Serigne Touba it ci kaw suuf mu boole nekk Serigne Fallou nekk Serigne Touba ci kaw suuf euh, vraiment cofeel googu da koo gën a yokk wàññikuwul benn yoon ginnaawam maa jël sama téléphone woo Serigne Galas Kaltoum ne ko yéen de la yàlla baaxe ngeen nekk doomi sëriñ Baara yi sant Mbàkke wante war ngeen a yëg ni sëñ Alaaji Baara moom amoon na geneen njaboot goo xam ne sant mu Mbàkke man ci laa ma bëggoon rek loolu tàbbi ci sa nopp nga yeggaleel ma ko ci Serigne Moustapha ngeen xama xame ko noonu rek laa ci jublu mais yemuñu ci xam ko dañ koo fat te loola fa ñu ko fat yàq musu caa tàbbi yëngu-yëngu àddina réew li ci baax mooy jàmm réew li ci baax mooy li ci baax ñi ko moom di population bi ñu di leen bàyyi xel réew li ci baax mooy ki ñu ko dénk xam ni dañu ko dénk li ñu ko dénk moomu ko da ko bokk ak de sénégalais yoo xam ni da leen a war a respecté da leen a war a wekk ñooñu la yoral réew mi bu ñu ma falee et il me bu ma sañoon dootoo wax bu ñu ma falee da wax bu ñu ma dénkee parce que ki ñu dénk dana xam ni alali jàmbur la yor dana ci bàyyi xel ñi mu yoral alal ji dana leen fonk dana leen wekk wante boo ne bu ñu ma falee day mel ni dañu lay fal nga nekk buur ci suñu kaw te loolu la ñépp nekkee woon te bëgguma loolu dal la dana ma woo dama sama frère sa mag sëñ Moustapha nee na bis baa ngi te bu ma teewee yëg ni boole nañ ma ci ci ci njaboot loola di wëy di wëy di wëy ba bisu ba bisu tey bi donc loolu c'est c'est quelque chose de profond moo tax ma ne ak lu ma xat xat xat bu ma nekkoon président de l'univers ñu war a am conférence sur la planète Mars bisu Alaaji Baara bi am ma bàyyi fa roppalaan nga ñëw fii. Ah. monsieur le président laaj bu mujj rek jëm ci fukki weer def suñu diggante élection bi jamono ji kuje gi nga bokk nekk ci benn ci ténor yi ak nguur gi waxtaan wi daal neexul est ce que yaakaaroon fukki weer rek def suñu élection est loolu baax na ci réew mi ñu jëm ci échéance yu mel nii.